bi il faut ñu gëstu leen waaw gëstu itam ci euh, euh, Baba Yaaye Wan euh, bokk na ci mag yi njëkk a créé école fii Sénégal ubbi na benn école à l'époque Parcelles Assainies hmm. école baa ngi tudd Jindaa Thiam hmm. Jindaa Thiam am na ay jamono yu bëri yoo xamante ni école bi dafa ah, tëjoon mais ibiwaat nañu ko ci année scolaire bi hmm. moom dem na waaye njabootam ñu ngi àggali œuvre ah, moom it xam naa bis dinañu ko waxtaan waxtaanee ci yeewu leen bi moo jur a caawan ah xam nga Baye Cheikh dafa am loo ñakk la ak procureur bu ñuul bi abbas yaayawan waaw waaw dafa am loo xam ne lii eh, bay cheikh gàcc la sa bay samp dara ha. ba won la ginnaaw loolu fexewu ba def ca dara loolu gàcce la wallaay kon ñoom tam bu ñu góorgóorloo ba école boobu dundaat mm. nekk na loo xam ne lii lu am solo la te école la boo xam ne bi Baye Cheikh mm-hmm. am na ci xale yoo xam ne école boobu dimbali na leen de seen baay amul woon fay te kenn génnewu te ku ci nekk tey am nga ay diplôme ak ñoom ñëpp war nañu wàññeeku di jàpp ci école boobu wallaahi Baye Cheikh loolu c'est très important euh, donc Djinda Thiam école bi mm. ibiwaat na euh, ñu ngi ndokkeel njabootu Baba Yaaya wan yëpp mm. euh, ñoom Seli wan moo jur Abbas Yaaya Abbas Yaaya envoyé wan procureur bi. <laughs> mu procureur ban kii la Baye Cheikh. fu mu féeree ci ku dëkk yi rek xëy na Coro Coro Abbas procureur fan la. fan la ah Coro xam nga ko xaw ma ko. Thiès wala fan. bon naa ko laaj Atia naa ko laaj Atia moom wala ñu laaj ko Fatou Guewel mi nga xam ne ba mu koy wooyee dafa ko Guewel kenn procureur. <laughs> procureur bokk Abbas Cheikh wan procureur. donc dinaa càmm personnel ba ak élèves yeeg ñoom ñëpp ñu ngi di euh, ñu bu baax donc mag ñi di leen waxtaanee am na solo